yi nga xam ne euh, jox nga ko ngir ñu mun jëfandikoo site bi nga xam ne mooy 3W euh, point aide terme sud tout collé point com. ñun ñoo ko gisandoo. Euh, mbokk yi maa leen di dellu di leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tuur ak seen sant di rafetlu seen teewaay euh, yéen ñëpp di ci jiital yéen ñii nga xam ne yéenay taskatu xibaar yi bu dul yéen lépp luñ fi wax du dem fenn di ci toftal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu tax a daje fii muy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. njabootu terme sud di ci teg ki nga xam ne mooy borom kër gi di monsieur le maire Barthélémy Diaz sama mag di ci teg euh, sama beneen mag président Ousmane Sonko di député assemblée nationale sama ñaari mag yooyu nag muy Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko bu ñu xasee ba wax daanaka li ci des dootul bëri li ma ci wax kon du gudd sama teewaay fii mooy jëfandikoo sama jëmm ngir coofeel jëfandikoo sama jëmm ngir mbëggeel jëfandikoo sama jëmm ngir jàppalante ngir dimbalante coofeel mbëggeel ndimbal boo xam ne dañ ko war a jëmmal ci 79 familles yu terme sud yi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li nga xam ne moom moo leen dal tey nag ñëwuñu pour nettali histoire ndaxte dañuy faral di wax naan nettali histoire indi histoire la tey lu ñu fi indi mooy képp kuy doomu Sénégal te nga nekk fii ci Sénégal te nga nekk ci Afrique wala ci diaspora bi képp kuy doomu Sénégal ak lu ak loo mënti liggéey ak foo munti bokk ci diine ci tarixa ci mbootaay ñu ngi sàkku ci yow ñu ngi sàkku ci yow sa ndimbal ñu ngi sàkku ci yow sa cofeel ñu ngi sàkk ñu ngi sàkku ci yow euh, sa solidarité ci lépp lu ngeen mën te attan ko ci xaalis ngeen yónnee ko ci site bi www.ettermesud.com xaalis bii nag li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne ci kër la ñu nekkoon ñu génnee leen ci kër fii ak ay ayibés maanaam fii ak ay semaine fii ak ay weer gën saa bëri ñu mun dajawaat fii ne ci dimbalu yàlla ak ci ndimbalu askanu senegaal am nañ ndam ndaxte génnoon nañu ci kër. kër yaa ngi nii fi nga xam ne mooy seen kër yu bees yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def senegale yi mën na mën nañ ko yàlla nañ ko def kon lii mooy sama teewaay fii teewaayu sàkku ndimbal la teewaayu sàkku cofeel la teewaayu euh, jàppalante la yàlla moo ñu wax soppante leen ay soppante nag du ci wax ndaxte jëf mooy nattukaayu dëgg soppante ci jëf la suñu ay mbokk terme sud soxla nañu cofeel te ñun doomu senegal ñun doomu Afrique daanaka bépp mbindeef ndamam mooy fekk sa moromu doomu aadama mu toog nga yëkkati ko fekk ko mu liw nga fexe ba mu tàng fekk ko mu xiif nga jox ko mu lekk fekk ko mu ñàkk dëkkuwaay nga fexe ba mu am dëkkuwaay